ba fajar ba fajar ak Souleymane Diaw fa tabarakallah tàllal leen loxo yi tàllal leen wa waaw <laughs> bi ne waaw ko bismillah serigne mam Malick xam nga lutax nga neex ma gaaf ci serigne dalu la gaaf ci serigne serigne ñent gaaf la ñak njariñ xam-xam ñak yermande ak ragal sëriñ bu ñàkk njariñ te mënoo tee mu yiisa natt weesuwu ko sëriñ bu ñàkk xam-xam boo gindi ko bàyyi ko mu ni sama taal bi daa war te fekk moo xamul dara sëriñ bu ñàkk ne boo dof dof loo ba dugg ci loo mënul feelee toog naan xamoon naa ko ndax daa bari man-man te fekk moo la dimbali sëñ bu ragal nag moom ci ay xel ngeen dëkk ndax léegi buur day xëble dépasse di xëble àdduna te nit ki mënoo dëkk ci xel ñeenti gaa fi sëriñ jalu la sëriñ ñett la tay ma sëriñ force nga dip serigne akub time tay ma dip serigne moy ñu nga rom ci mbéj ñu yor ay bejeen ak laar di wor kokoy tay ma dip serigne force nga dip serigne serigne ñukoy jur waye bu juddo day tagoon digal ba baayam faatu ñu wor ko bu gis ko niko kay tok mu ni de ñun ko force parce que mak mom la bu toge da koy soppi nguur bu ko seppee nguur talibé ye def ko perolum ginaar ab serigne day jang xam-xam jang xamé di digle li yalla digle diko def di tere yàlla té di ko ba looluy mu ngi ak Dakar ak Dakar ndëkkëru mooy Kër Mbay Fall ak Kër Masaar Dakar mooy Pikine ak Poste Thiaroye Dakar mooy Almadies ak Nord Foire koo dégg nga ndëkkëru laa jëm Njaga Njaay ko yóbbu koo dégg ma damay dem Dakar sept place moo ko yóbbu koo dégg ma damay dem Dakar Pajoro Mamali yaay Dakar